salaamaaleykum euh, mbokk yi ñuy seetaan salaamaaleykum euh, euh, Sénégal yi ak fépp fu Sénégal nekk ci àddina ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di ñëwaat ak yéen ci seen émission jéggi dayoo Cheikh Ahmed Cissé salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Cheikh Ahmed Cissé ñu ngi lay tàggal di la ziar bu baax. maa ngi rafetlu loolu le di delloo ziar Guèye di ziar képp koo xam ne mu ngi seetaan émission bu mag bile. jëf Cheikh Ahmed euh, ma am euh, benn question boo xam ni sénégalais yi dañ koy demander à chaque fois ñu koy demander nag xam naa ni jigéen ñee ci ëpp parce que euh, dañuy jànkoonteeg yooyu problème ndax war na góor wala war na sax jigéen ci couple ñu séq rapport sexuel te préparer wuñ mu doon loo xam ni rek da ngay ñëw rek euh, ci lu jigéen ci préparé wul wala ci loo loo préparé wul rek ñëw rek dal ci kawam. déedéet. moom rab sax da koy préparé. rab wàll. ah dana fóon dana yuuxu yëgle dem ñëw surtout béy. mbaloo mbaloo li na mu def ko. Hmm. ganaar day wër fudd mbagg bi donc lu ñu war a prépare la. rapport sexuel. Mhm. su rab demee ba di ko préparer te rab amul organisation ndax mën naa sëy ak ndeyam. Mhm. mën na sëy ci moromi rab yi mën na sëy ci biir nit ñi. Mhm. waaye daf koy préparer. rawatina nit. Euh, Cheikhou. bokk na ci teraanga yi gën a màgg yu yàlla teralee doomu aadama rapport sexuel. teraanga. waaw. rapport ma ko. teraanga yi ñu yàlla def. Hmm. jox. Hmm. alxuraan ci la bokk. dëgg la nangu mbaax. nangu na muñ jub xaalis yonent bi ci la bokk. Hmm. mbëggeel ci la bokk. rapport sexuel ci teraanga yàlla yi la bokk. d' accord je d' accord. lu tax mu nekk teraanga. mooy bu dee da ngeen ko jaar fa ngeen ko war a jaar. mooy définition. mbëggeel pire moo tax tubaab dee ko fait d'amour def mbëggeel rapport sexuel moo tax nit dëgg gëmut ne nit mën naa tëdd kum nobul feebar yi dañoo bari ku tëdd koo nobul da feebar dangaa ngaa feebar hmm. feebar ci wàllu xel waaw ok mooy sa sull bi moo ëpp doole sa xel mi ci sa yaram bi kookoo mën a tëdd kum nobul maanaam sa sa sexe daf la dominer quoi. waaw loolu feebar la mais nit ñi konte wuñ ko feebar ndam la. lu tax nit di dem di fay pour def ko. mooy feebar. d'accord dem nga ba yëg-yëg bi la yàlla teralee. nga waroon koo am fa nga ko war a amee mu signifier la mu war a signifier nga dem ba xaalis mën laa jox yëg-yëg boobu danga nga feebar. yemoo ci feebar mais xamoo yëg-yëg bi mooy lan mais valoriser woo ko. maanaam daal ku dem bay tëdd ak nit rek koo nopp la war a nekk. weesu nopp. koo bëgg koo bëgg koo nopp koo sopp. koo respecté mais ku ku jar dara ci yow. moo tax ye bàyyi yonantu bi leeri yonantu nekkee ci moom. Hmm. yahuud yi xam ko topp ko. Hmm. nan ko kaay laal ma benn yoon benn daanu rek ma may la téeméeri gëlëm da daan daw ndax téye boppam mu ne bàyyam ne fi mu nekk nii nag liy jot jot na. Mhm. ñëpp ak ma topp wutal ma jabar ma dénk ko suma kattan ma dénk ko suma mbégte ndeysaan mais man waxuma la téeméeri gëlëm mais sa forme bu baaxee rek mën naa la laala ah. kon yow damaa bon waaw kon yow da ngay sëq damaa yées waaw ah d'accord loolu yow la léegi ki baax mhm. xam valeur rapport sexuel mhm. xam lan lay signifier moom proposé nañ ko téeméeri gëlëm autant mu bañ à l'époque proposé ko lu ne mu bañ. mais bi mu amee Aminatu. Hmm. moo ñu jural yonantu. sallallahu alayhi wa jigéen bu téye boppam ak góor gu téye boppam xam nga bu gën. Hmm. góor gu téye boppam. sam papa daan ko mais nag société bee ko juutal ba tuumaal ko jigéen. Hmm. mais rapport sexuel daal. dem na ba ci jëmm ci. boo koy def. fépp koy defandoor ak yow fu manqué du dem. maanaam ci sa ci sa catu karaw ba sa. ba sa catu we yëppay sëy bu ci manqué du dem. ci ban anime maanaam. tey xoolante koo bëgg rek day déranger sa yaram. dafa am lu mu ci yëngal. waaw xanaa xamoo di nga bëgg nit mu ne tël nga yem ci fotom sa fit na rës. d'accord ah te ragaloo ko de. Mhm, dëgg la bi ci ginnaaw noonu. Mhm. te ragaloo ko. Mhm. waaye li nga yëg ci moom moo yëngal mbooleem cëri yaram am na ñoo xam ne sa bu dee dangeen ngeen mere woon mu ne tël ñëw sa biir bi day daw je suis d'accord ci douche ba nga jëm je suis d'accord nga ñëw ci xoolanteeg moom sincèrement loolu day dalal xel saa xool koo bëgg mu xool la ba nga am tuuti muuñ boo def hmm. day dalal xel day dindi stress mooy li gën a gaaw ci dindi stress mbëggeel hmm. ndeysaan nga xool ko mu xool la rek mu muuñ nga muuñ hmm. sa stress yëpp danaan dem. Mhm. mu ngi mel ni tuxkatu bon boo am stress bay siiku. Mhm. jamono boobu muy métti. Mhm. yëgul dara ci àddina. mais bu mbëggeel nag day yóbbu sa stress te boo fa jógee am solution. parce que ki nga bëgg moo la yéene jàmm moo tax yonentu noonu yéen ñi bëggante dee leen wéet guddi di ñaanalante saa xanaa xamoo ngay régler projet. bul woo Cheikh Ahmed na ko ñaanal ma. na sa jabar wér rek. sangu ba set. Hmm. jaru sax mu sol silib man. sol. silib silib waaw. Hmm. na sol lu yiw rek. sëgg julli ñaanal la. moo gën a gaaw balu fetal. waaye sa jabar war a matu nga jàpp jàkkaarloo yàlla ne jigéen ji nga jox ma yàlla na ko may ombu sedd bu demee rek duñ ko opéré wala buñ ko opéré mu am jàmm ñaanalante en couple dara gënu koo rëy. Mhm. bi may nekk sëriñ nit ñëw na ci man ma bindal ko li ma xam mu gën a dëgër ma def mu dëgër. ma ne ko dina añ ci sa kër ma ñëw gis ni jabar ji di defee ma ne ko mën naa xaritoog sa jabar mu ne ma waaw man laaj jabar ji mu wax ma naqaram mm-hmm. ma ne góor gi ne dimbaleel sa jabar fonk ko lépp lum mu doon réglé ci la baaxaat ci leen ko jëlaat ci gouvernement bi mm-hmm. te pourtant am naa ñaan am naa baatin mënoon naa sëriñ la ba ma ko daan def laa wax mm. mais àq jabar ji tax na man lu ma def yàlla bañ dëgg la butéel bu ñu tëj ndox mënu cee dugg faw nga ubbi kubéer gi. Mm-hmm. doof ndox ba pare tëj ko. dëgg la donc tey di waxtaan ak ko bëgg. Mm. bokk na ci préparation sexuelle moo tax ma koy wax. Mm. ma ne boo liggéeyee. si mm. kër gi nga jóge moo la defaral ndékk. demal woo ko na ko maa ngi réunion mais mënu maa toog dama laa namm mbaa yaa ngi ci jàmm. ndeysaan. loolu ëppal na jigéen milliard. dëgg la. ndax jamono bi nga xatee. da lay nangul message te message bi day remplacer appelu une de temps. day remplacer fóon day remplacer lépp lay remplacer parce que da nga ko soulager da ko wan ne moom am na importance. waaye da ko wan ne si sax xol bi mu nga fa. Hmm. da nga ko wan ne loo jàpp jàpp mu ngi ci xel mi. da koy doy. ndeysaan doy boobu mu koy doy nag. Hmm. moom yéene na la boppam. te laajoo ko soxla woo ko. xanaa xamoo jigéen di nga ko teral ba. saa yu la joxee boppam bu méttee sax du métti da koy muñ ngir yow sa mbégte ba méttit bi dootul métti parce que amut lu mu la war a fayee ngir sa ngor. te bu te buggu la ni mi ngi. du la ko wan métti ndax da nga koo teral ba méttit bi far doon bànneex ci moom. léeg-léeg nga fob sa doom. Mm. sa loxo yi toq mm. mais bëgg mu nelaw day tax doo bàyyi. dëgg la foofu laay waxee. dëgg la. góor. Mm. di nga bàmbaane. ba sonn. mais doo bëgg a teg. ndax bambane bi moo tax sa doom ne jooyul te ñàkk a mooy sa plaisir nga muñ loxo yu métti yi mm. jigéen da koy dal mm-hmm. ba boo ko laajoon ndax day métti dala naan déedéet defal kon kon kon looloo tax nit buy àgg ci kaw soxnaam mu war ko préparer war ko bañ a brutaliser war ko préparer psychologiquement war ko préparer ci mbégte mm-hmm. xanaa xam bokk na ci tëdd sa soxna sa na ko mu bëgg def dara tey soo ma tëddee ba ma yuux mm. may naa la oto loolu rek ngeen di am. nga ne sa soxna tëdd ma ba ma yuuxu. ma may la oto. Hmm. loolu si feemu borom kër la war a bokk. day fekk day loolu day tax xale bu jigéen bi. da lay rey nga naan ma ay yokk ay ay ay. am na ma laajoon consultation ma ne ko sa jabar lu mu gën a bëgg mu ne ma iPhone 14 ma ne ko jënd ko ko soo ma tëddee ba ma bëgg nga am ko mu ne waaye rëccu na lu mu jëndee woon 14 bi mu xëyee doxul. kan ku góor ki doxul ku góor ki doxul ndaw si da ko doon. te day jàpp tàngal bant bi ba tànkam yi di dox mu ne mosuma xam ne mën na lii ma ne ko jigéen mën na lu ne ça dépend ci nan nga ko autoriser mu fecc mais mën na pàkkar bu ne mhm. pour te dire pré loolu yëpp ci préparation psychologique la bokk psychologiquement d'accord mu des beneen na ah. mhm. gis nga dama koy wax ma ne jigéen mhm. dafa am ñoo xam ne mënuñoo daanu dañoo feebar ah bon waaw dañoo feebar mënoo ci dara laajal Cheikh Ahmed dem laaj sexologue bi gën a mag soo ñëwee duñ daanu foog ñu wér. ah ok. am na ñu dul gaaw a daanu. d'accord. am na ñoo xam ne xarafal moo leen lor. waaw. ñu ñun nit a leen ko teg. waaw. mais tey boo amee jabar ji dul gaaw a daanu. Hmm. da koy tëddee trois heures de temps. ah mais su nan la nit di jàppee doomu aadama nekk ci kawam trois heures de temps. merci ok. romb ko waxtaan ak moom foon ko tuuti bàyyi ko. je d' accord. bokk ko soroon léeg-léeg nga am foo foyee ci dënn bi bàyyi ko. d' accord. su bët yi commencé soppeeku wala kàddu gi changé rek mën ngaa dem ci foon raay ci tëddee. Ah. ndax seen yaram mooy yéex a adopté wu. Hmm. am na koo xam ne te bu naanoon ndoxu France léegi soj léegi am na koo xam ne deux semaines après lay soj. dëgg la am na ko dul soj. système mu yaram yi du nu benn. xam nga jigéen organisme yi d'accord dafa am koo xam ne bu taxawee da ngay gis espace ci diggante tànkam yi. Hmm. seetlu nga ko. déedéet seetlu ma loolu. kon yow doo xool jigéen. waxuma ma xool jigéen bu ma xool woon jigéen du ma man ñaari soxna la mais seetlu woon ne am na jigéen yu tax bu ma sequl dara du ma ko xool man du ma du ma xool ay forme mag loolu maanaam seetlu woo ko man sama jabar rek xool dama ne am na jigéen boo xam ne waaw bu taxawee da ngay gis diggante tànkam waaw kooku li ko yàlla sédd hmm. ci wax bu gën a rafet hmm. mooy wolof la mooy lu ndaw grawul man say wax déranger tu ma ditu ok ci digg bi la nekk d'accord am na koo xam ne bu taxawee tuuti espace ngay gis kooku naq bi la gën a jege am na koo xam ne bu taxawee danga nga dul gis espace kooku <laughs> laa ngi ci ginnaaw léegi nag jigéen bu ne ci form bi mu am nga ko war a mën a bëggale ñëwul ci bu njëkk bi. ki <laughs> nekk ci digg bi boo ajee tànk yi nga koy gën a jekku ci lay gaaw a daanu. Mhm. moo tax am na ñoo xam ne noo def ñu ne la tooj ma wala ñoom ñooy tóoj seen bopp écarté ko garder tànk yi ci kaw. Mhm. ci leen koy yëg su boobaa li ñuy wax clitoris parce que su ma ko waxee ci olof day ñaaw. Mhm. day wàcc. booy boros da nga koy xoosaale ca lay daanu. d'accord bu dee ki nekk ci naq bi nga tëddal ko jaaxaan moo koy faj moom boo ko na leen naq bi di laal naqam bi nga koy pompe lu baax mel ni soq mu jàpp mbër di dóor su boobaa dafay sant yàlla day gaaw a daanoo. d'accord ki nga xam ne moom gisoo espace ci ginnaaw la. Mm. kooku boo ko sëggalee li anglais do doggy style ci nga koy am. Mm. mooy waral ñi ñuy sëggal ñuy yuuxu ba garde yi di fëgg ndax kër gi day lakk fekk lakkut. yow ñetti euh, façon jigéen yi. waaw boo xamut ban nga am munoo bégal sa jabar wala danga koy gaañ. ci biir ñett yi benn bu ne ñett la. d'accord mais yow loolu loo jàng la wala loo looy essayer la. Euh, essayer moom dadul wóor ndax mën ngaa essayer mu neex nga toog mais looy jàng la looy xam la yàlla moo bind nit. mais loolu yu ñu bind la xaatim ko ci ay téere nga jàng ko wala yow ci say <laughs> imagination ngay demee noonu. ci li nga jàng nga mun a imaginer. d'accord mais tey dañ lay jàngal yaramu nit xam nga góor man. wax ah, naa ko parce que dama la ma a dégg nga ni am na yu ñu benn ci téere. Hmm. yoo xam ne ay boroomi xam-xam. xam nañ ko te nit tegu ci bët te ñi ci teg bët duñ ko wax. Hmm. te loolu yaramu jigéen ak yaramu góor. ak rapport sexuel lépp xaatim nañ ko foofu. te kooku tele boo ubbi ñu waxtaanee ko ñëpp a ngi koy waatee moo ko bind. moo ko bind. waaw Sénégal fii. Hmm. soo tànnoon ñetti sëriñ yi gën a mag moom ci la bokk bu dul paye di di. waaw d'accord bu ñu dugg ci loolu. mais léegi yow foofu nga ko jàngee. non dama lay expliquer que. waaw su doon lu bon. waaw sëriñ boobu du ko bind. du ko xaatim d'accord. ndax boroom xam-xam mën naa wax. non du lu bon moom. waaye su bindee. waaw mooy signature président la. te moo ko bind muy fukki paas ak juróom benn. ci ci ci ci góor rek. ci fóonante laalante raayante. nan ngay laale sa jabar mu neex la ba miin la ba foo dem mu du toog nan ngay sa jabar ba soo deyee kenn du ko donn loolu rek la bind tëddante la bind d'accord ba mu jeex yow jàng nga ko yow waaw waaw est-ce que mokkalu ko parce bu nekk xam naa la jeneen ndax loolu may loolu su may léegi boo boo amee soxna nga bëgg àgg ak moom fenn fi ba fu mu dem du xelam du nekk ci keneen bokk na ci fóon bi bokk na ci <laughs> bi bokk na ci <laughs> bi. bi. gis nga. non fóon waxoon nga ko ah. waaw waxoon naa ko. waaw mais tey ñëw ci beneen. gis nga soo ubbee sa tànku jaf soxna. waaw. war a <laughs> ci caakri bi. nga day am araw soow mu neex caakri xam nga caakri dafa neex. non man je ne suis pas d'accord xam nga lu tax da def émission yow yaa ni tu ne pas autour du pot. ki seetaan sa émission comprendre li nga wax nga ni ko caakiri lay defe ni da ngay dem jënd caakiri waxal li nga bëgg a wax nit ñi comprendre ko parce que da ngay jàngale man mi toog fii mën naa koo bañ xam ki lay mën na ko bañ xam explique parce que da ngay góor waaw su ubbee tànku soxnaam waaw ba jàkkaarloo waaw war a mm-hmm. euh, dafay njëkkee ci kubéeru njëkk li laal ci bi tóoj ko am na lu xonq lu fa nekk lu mel ni bul bu ndaw comme big nu muy mel la mel foofu nga fay teg sa baram bi di ci nokki ngelaw li di dem ci moom dootu la fàtte loolu la sëriñ bi bind mu ne sa ngelaw yi nokki bi s'il te plaît nga baal ma mënuma la exiger dara yelente kon ni sama invité nga du ma la exiger mais dama bëgg nga baal ma bul tudd sëriñ. turam. non bul tudd waxuma la turam bul tudd sax sëriñ. non mais sëriñ bi ma ko jàng. bul ko tudd waxal rek. yow jàngaleel yow. léegi lan moo tax du ma ko tudd expliqué bëgguma nga tudd ci sëriñ. parce que maa ko xam dimbali ma. ok léegi man fi ma ko jàngee kon bu ma ko wax parce que sëriñ bi laa ko jàng. waaw neel rek jàng naa ko. ok jàng naa ko. jërëjëf. ok ñu àggale. ki ma ko jàngal. Hmm. noonu la ko bindee. mu ne. boobu mooy première phase waaw mu ne nokki bi ngay nokki. waaw. muy dem ci coppare bi. waaw. sa làmmiñ bi di ko laal. waaw day tax moom ndaw si dootu la fàtte. maanaam ku bëgg jigéen bum la fàtte. day ci nokki. mais tañ ni loolu euh, di dem foofu ci sa soxna dafa aram. non man jànguma fu mu aramee ah. li ma jàng mu aram mooy sodomi. d'accord àggale. mais loolu moom jànguma fu mu aramee. sodomie euh, ci bon xam naa ne. mooy fa ngay demee toilette nga rof sa awra. waaw loolooy sodomie. ñu àggale. léegi bu fekkee ci laal. Hmm. ngay laal sa soxna. Hmm. ba yàgg nga génnee sa awra. Hmm. ba awra bi jeex. soo koy dugalaat. nga ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni. ñetti yoon baamtu ko. wa alqaytu wa alqaytu alayka alayka mahabbata mahabbata minni minni ndaw soosu daf lay bëgg ba soo dee jigéen góor dootu ko doon maay moment bi ngay jël sa sexe ko maanaam da ngay laal ba mu tooy ba nga xam ne yaa ngi cëmbax cëmbax yi di dem di ñëw waaw nga génnee ba mu set waaw sooy dugalaat nga wax wa alqaytu alayka mahabbata minni benn yoon dugal mais balaa nga koy génnewaat mm. na nga ko wax ñetti yoon ci saa si fi nga ko defee mm. day mel ni ku dalay kott mel ni yow beneen façon ngi nit nga ci résultat automatique et immédiat. loolu mu day permettre jigéen. maanaam dootu la fàtte boo dee sa duñ ko doon. mais nag am na góor ñu saay-saay ñoo. xam ne seen affaire la bis buñ ko jàngee ni dégg ko ni ko wax mën na nañu jàpp doomu jàmbur def ko ko. nu doomu jàmbur nangoo ba saam boppam. après ñu kii ko xam nga nit nag fa ko mbëggeelam di toll nga dul xam. ah kon kay bul nangu ñu def na loo xam ne doo fàtte. doomu jàmbur ci jàmbur la war a toog mais bu demee ba joxe boppam bu ko defee ba dalee moo ko def bu ci ëmb dalee moo ko def bu dégloo Cheikh Amine ñu appelé ko ci moom moo ko def mais bu téyewoon boppam kom na koy toog ci pooju ndeyam waaw kon yow da nga contre jigéen ñi ñuy dem di def loolu non maa amu ci problème ah seen seen <laughs> du <laughs> man bii laa moom d'accord Bakar bii laa moom ñoom seen affaire la d'accord léegi troisième bi mhm. boobu wax nga pénétration bi mhm. troisième bi donc troisième bi fóon la. déedéet premier bi fóon la. fóon deuxième bi wax naa la. waaw wax naa la laal bi. ah mooy jeex na d'accord d'accord donc tey maanaam mbirum laal lu ñu war a xam la mystiquement scientifiquement ment humainement. loolu yëpp dañ ko bind. dañ ko war a xam maanaam am na loo xam ne al alxuraan waxu ci science ba tey yeggagu ci. mystique waxagu ci mais yow xam nga ko kenn ku ne xam na ci laalante lu sa baay xamul kenn ku nekk xam nga ci laalante lu sa sëriñ xamul kenn ku ne xam nga ci laalante lu kenn xamul ñun ñëpp nag. lu tax ñu ñu ñu ñu def ko sujet bu tabu tabu tabu. parce que naa fekk su nekkoon sujet tabu kay den naan du ñu am jabar. pasteur yi duñ am jabar. du ñu am doom aussi père yi. waaw ñun moom buñ ci waxut ak yow ah. waaw père yi moom buñ ci waxut. waaw nangu naa ndax ñoom dañoo suur jigéen jox seen bopp yàlla. waaye bokk jigéen bokk ñaar di laal di am doom def ko tabu naa fekk nga dëgg la dëgg la su fekkoon Cheikh Ahmed day ñëw ne dem leen laalante su boobaa dañ ko war a arrêté ndax mu ngi xirtal nit ñi ci lu bon su boobaa moom yow sa booma arrêté wul am nga faute mais lu ñu war a def nga wax ko nañ ko war a defee pour ku am jabar ak jëkkër mun ta bon xam xam nga lu tax ma ma ma ma ma ànd ak yow ci côté boobu mhm. ñu bëri ñu ngi jël seen partenaire di jëfandikoo ak moom anim boo xam ni dinañ ko gaañ wala dinañ ko feebarloo wala di dinañ def ci moom naka sudu noonu moo tax ma ni la préparation ba parce que di nga ci gis ñun ñoo xam ni sax balaa ñuy sëq ak seen jabar rapport sexuel dinañ ko avertir ni ko tey jii bëgg naa ñu séq ñooñ dañoo nite bu ko defee soxna si mën ko préparer psychologiquement wala mu ne la j'ai pas mu jeex waaw waaw nga mais boo ne j'ai pas envie ñu indi la hadis ba waaw mu ne ko ay sa jëkkër sa ba safara nga jëm waaw mais nag ko biiñ la waaw mais du toujours su leen ne paree ko soo paree wàccal. barke yàlla am fi billaay walaay tere soo paree wàccal. parce que da nga koo napp ci yàlla yonantu mu ragal yàlla rek jox la ko boo paree rek wàcce la bëri na ñuy laal seen jabar waaye duñ lay mën a lay bëri na ñuy laal seen jabar mais duñ laalante ak seen jabar laalante mooy da ngay timbax ñu rimbax la ko waaw mais ñoom timbax rek yaay timbax rek yow yaa ko laal bul wax dama doon laalante da ngaa laal laal ak laalante du benn olof la mais diggante bi la sa borom kër di waxee ne tey ci guddi kat soxla naa la boo nekkee ci say période nga gis mbaax mën nga ni ko ah man kat setuma waaye boo pareegul amoo envie def rapport sexuel mënoo xaar ba ci kanam boo xëy na di nga préparé wu préparé wu gu gu la jox envie pour nga nekk ak sa jëkkër. xam nga rejeté ko ci saa si. xam nga moo tax ma ne. waaw xam jigéen dafa war. xam sa jigéen war. waaw foofu d'accord naa pour nga xam ndax. léegi am na jigéen ñoo xam ne balaa ñu gis règle la am envie. dëgg la. am na ñoom na bu ñu gisee règle ci biir gis règle lañ duñ mën a muñ am na ñoom ne bu ñu gis règle dañuy séexlu fóonante sa bëgguñ ko waaw ndax tooyaay ba ñuy tooy ci neex-neex ak règle bi àndul dëgg la am na ñoom ne bu ñu paree la ñuy am envie waaw léegi yow sa jabar ban la ci ngay tëñëx tëñëx rek suñ la laa da nga ne <laughs> astafurlaa ci ci moom bon la waaw mais nag jigéen du jigéen du nekk ci ay règle am nga koy seq ak moom mais ci la ñuy am envie dama la ne nit humainement waaw am na ñoom ne bu ñu gis règle même bu ñu tëddul d'accord ci la ñu am envie waaw mais tey euh, am na ñoo xam ne bu ñu gisee règle ba pare hmm. dootuñ mën a muñ góor d'accord même boo ñu la ndomb toon sax nga message leen ñu tombee dañu lay ñëwal benn yoon pare ci yow parce que dañu sonn dañ ko soxla d'accord mais yow sëy nga ak jigéen fukki at xamoo moom ban la ci mm-hmm. damay gis wax ju dafa jigéen da nga koy laaj lu lay bëggal mu ne la cherchel ko sa bopp te loolu waru la ko wax mais tey mën nga chercher dara ci kër gi te ko gis. toxal lii nii. Mhm. ba ëllëg micro bi du dox fekk waroo ko war a toxal. dëgg la. laalante li ci njëkk mooy conversation sérieux et honnête. ku ne wax sa moroom waaw fa mu bëgg. waaw am na koo xam ne dafa nekk ak am soxna si jàpp un say nii ñaari woyu yore yi. luy loolu. waaw. képp rek sax waa ji ne wooyu mu ne ko xamoon naa ne fii neex mu ne ko déedéet yaa ngi may gaañ. ah d' accord d' accord ku dul mandikat hmm. ku lucide hmm. soo laalee day loolu sax ko fooyee wóorul waaw day métti hmm. mais am na ñoo xam ne ke bu ñuy drogué ak kii noo ko gën a bësee mu gën a neex barke yàlla billaahi léegi nag kuy nekk ak mandikat da nga war a mën a différencier diggante kuy lucide ak ku dul lucide kuy lucide moom boo bëggee mu neex da nga koy mel ni ku koy ñeelamtal di ci dawale làmmiñ bi bu ngelawalu dina tuur dugub de dinaa def ak yow benn émission boo xam ni incha allah dama lay laaj ñiy man di di tëddante seen biir. <laughs> bëgg nga émission boobu ñu def. moo dàq sabaru Samba Diarra Mbaye <laughs> am naa ci histoire yoo xam ne. loolu bul ko commencé gum dañuy dama bëgg a bàyyi ba ñu def beneen. <laughs> ba ñuy def beneen émission ma laaj la am na jigéen ñoo xam ni faw ñu jël dara góor mën leen tëdde am na góor ñoo xam ne foofu ñu jël dara mandi pour mën a tëdd jigéen am na ci ñoo xam ne sax jigéen ñoo xam ne foofu ñu dóor leen xeex ñu xeex xeex xeex xeex ba ñu dóor leen ñu soog am envie tëdd bu fekkee da nga sëree dañ leen naan dimbale ma tàpp ma waa léegi nga tàpp ñu ne bu baax buñ ci dugg mhm. nañ bàyyi <laughs> ba beneen émission parce que boobu damaa bëgg ñu def ko émission spéciale am naa ci kam-kam de xam naa ne yow yow yow parce que tuddee nga sa bopp sexologue nga mhm. jërëjëf Soxna jërëjëf Cheikhou Gueye war na ci askan wi. ñu xam jigéen xam seen jigéen ngir mën leen a béggal je suis suñ ko defut feebar yii ñuy def di sañe ñu lay laal muy métti. Mm. ak am problème mu doom du jug. te nen di bàyyi xel ne ndey kumbe ñoo gën a soxla góor te da leen di dimbale ci accouchement boo mënta tëdd wengalal boo mënta wengalal roofal nga gën a mun na la ñëw stratégie nooy laa leen ndey kumbe scientifiquement dafa baax ci moom. ba suba ak jàmm jërëjëf.